promouvoir projet bi te ñii di presse duñ la jàppale même jàppale bu ci nekkee ni man d'accord naa ci projet bi ak d'accord ma ci projet bi mais il faut ñu waxtaan déedéet xeex presse bi du solution faj presse bi mooy solution soigner la presse mais mais bàyyi ko mu dee du du solution donc il faut soigner la presse da ngeen am problème mu impôt ban problème la ñu toog waxtaane ko état bi ni man lii laa ci mun ñii ni ñun loolu boo ñu ko defalee dina baax ñu juboo jàmm na ñooy moo tax vraiment dëgg-dëgg war nañoo génn ci vraiment situation yoo xam ne pour man dëgg-dëgg mënoon naa ñàkk